nuyu journaliste yi nga xam ne ni def nañu déplacement bi tey pour couvrir conférence de presse bu tey bile di nuyu xarit camarades de parti les amis de la mouvance présidentielle de l'opposition ñi nga xam ne ni ñoom ñëpp def nañ déplacement pour ñu assister à cette conférence de presse pour ñu waxtaanee mbirum décentralisation décentralisation bi nga xam ne ni du guléet Sénégal 1972 jamono yi communauté rurale 1996 ñu xam lu ñuy wax régionalisation transfert de compétence pour que askan bi état li nga xam ne ni mooy pouvoir centrale bi mu délégué ay pouvoir ba nga xam ne ni population yi à la base ñooy prendre en charge leur propre destinée waaye 2013 li si gën a neex mooy mooy décentralisation bi nga xam ne ni def ñuy yóbbu ci ay innovation de taille bi nga xam ne ni le président de la république Macky Sall moo indi touche bu bees pour ñu am ay innovation innovation yooyu mooy lal ñu dem vers des localités émergente tey jii plateau émergent c'est ça la belle vision on veut un plateau émergent bi nga xam ne ni tey Dakar Plateau c'est la capitale de la capitale c'est pour cela ñu jàpp ne tey sunu engagement politique derrière le président de la République war na nekk loo xam ne ni amul sonn amul tàyyi vision belle vision bi nga xam ne ni président am na ko tey lañuy ñuy war a mën a gën a taxaw ànd ak moom ngir population yi nekk Dakar Plateau gis seen bopp ci régime président de la République makisal loolu moo tax ñun ñu jàpp ni depuis 1900 depuis 2012 ñu ngi gëstu di xool lépp loo xam ne ni war nañ ko mën a def pour ñu am un Dakar Plateau bu rénové un Dakar Plateau dynamique bi nga xam ne ni ku dugg gan bu ñëw Sénégal yegg si biir Dakar Plateau di nga xam ne ni ah li ngay fekk si ay ville yu développé war nga ko fekk fii si Dakar Plateau loolu tax ñu jàpp ni ñun dañu war a apporter suñu contribution pour Dakar Plateau bi nga xam ne ni jàmm moo fi am stabilité moo fi am joxante loxo moo fi am si xeet lépp soose lébu bambara tout le monde dañu waral joxante loxo c'est loolu la ñuy wax la démocratie loolu la ñuy wax loo xam ne ni bu ñu àndee ñun ñëpp l'union fait la la force euh, di xam ne tey euh, président de la république li mu yàgg wax na bar na bar parce que population yi seeni préoccupation yi mënatuñu xaar xalaat bu bari action lañu ñu bëgg a gis très rapidement ñu apporter des solutions par rapport ak seeni problème dañuy dem ci ay élection locale élection yoo xam ne ni gox bu nekk jox nañ la sañ-sañ nga am taxawaay pour nga xool lépp luy jafe-jafe ci sa gox nga indi say safara ñun ñu jàpp ni kenn waruñu ci jiitu looloo tax ñu jàpp ni fii ci Dakar Plateau war nañu gunge population yi ba nga xam ne les grands projet de l'État lu mel ni ay plan Sénégal émergent lu mel ni de PUDC couverture maladie universelle ñu fexe ba ñu sentir ko fii ci Dakar Plateau ñu fexe ba Dakar Plateau ku fi ñëw li ngay njëkk a gis mooy l'occupation illégale et anarchique de la voie publique man mi wax loolu nekk ancien directeur général bu ANAMA ANAMA bi nga xam ne ni mooy agence bu doon lijjanti mbiru marchand ambulant yi dama ni tey Sénégal il y a ce qu'on appelle la crise de l'emploi te marchand ambulant xaaruñu état bi jox leen liggéey ñoom ñoo dugg ci entrepreneuriat bi tey ñu ne promotion de l'entrepreneuriat kon ñoom ay ndaw lañu war nañ leen jàppale gunge leen parce que bu ñu toogee occupation illégale et anarchique de la voie publique mais loolu bu yàggee loolu la ñuy wax une légitimité sociale kon bu fekkee da ñëw pour dindi leen il faut nga jox leen solution solution bi mooy dina ñu réaliser ay complexes commerciaux communaux surtout dans les au niveau des quartiers traditionnels tey boo demee tey fu mel ni Rebeuss quartier boobu ñëpp war nañ xam ne ni Dakar Plateau c'est une zone à vocation commerciale et administrative war nañu mën a xool crise de l'emploi nan la ñu mën a dox ba gungee ndaw ñi yi nga xam ne ni tey ñu ngi ci gox yooyu mais surtout les marchands ambulants war nañ leen gën a bàyyi xel te loolu bokk na ci programme bi nga xam ne ni incha allah bëgg nañ ko indi par rapport ak élection yi nga xam ne lañuy jëm muy élection locale yi Dakar Plateau war nañu xoolaat au niveau de l'aménagement du territoire loolu tax ñu ñu jàpp ni infrastructure yi nga xam ne ni ñu ngi fi tey nekk ay patrimoine war nañu fexe ba articuler leen ba nga xam ne ni tey la ville de Dakar ak la commune du plateau dañu war a joxante loxo mutualiser nos les efforts loolu mooy tax ñu dem vers une ville intelligente parce que ñun ñëpp c'est l'État et les dem et ses démembrements euh, moo tax it ñu jàpp ni Euh, neuf compétences transférées moo am mais tey am na benn lenn lu ñuy wax l'emploi des jeunes et des femmes beaucoup si compétences yi mais jàpp nañ ni tey les collectivités locales dans la mise en œuvre des compétences qui leur sont transférées elles devraient travailler dans une approche emploi loolu xalaat nañ si maanaam tey boo xoolee tey éducation nekk na loo xam ne ni compétence transférée la Dakar Plateau xat na nañu dem vers ce qu'on appelle la construction des écoles à hauteur commencé na Dakar Plateau am na FEDERB loolu war nañ ko gën a yokkaat war nañu élargir la carte scolaire de Dakar Plateau mais Dakar Plateau également boo xoolee en termes d'éducation war nañu renforcer la formation professionnelle un million d'habitants boo xoolee Dakar Plateau lu fiy dugg chaque jour c'est des niches d'emploi extraordinaires et pourtant il y a des potentialités qui sont là mais les jeunes de Dakar Plateau chôment les femmes de Dakar Plateau ne travaillent pas c'est pour cela programme que nous voulons mettre en place, c'est la promotion de l'entrepreneuriat, le domaine, le secteur du commerce aujourd'hui, le secteur de la restauration. C'est des niches d'emploi où on peut caser nos, nos jeunes. On niche d'emploi pour aider les femmes du plateau à trouver de l'emploi. Euh, la question également de la jeunesse. Il faut que nous baillons l'accent pour la jeunesse parce que l'avenir de Dakar Plateau, c'est la jeunesse. la jeunesse bi nga xam ne ni bu ñu jëlee la forme pyramidale de la population de Dakar Plateau il plus de jeunes encore plus de femmes war nañ leen gën a accompagner te loolu bokk na ci surtout avec des maisons bu ñuy wax pour la promotion de la citoyenneté mais également loisir fexe ba stade Assane Diouf waxtaan ak autorités yi ba ñu jël stade bi def ko benn complexe sportif polyvalent loolu aussi am na solo xalaat nañ ci donc di wax ni euh, ñu ngi demander à tous les camarades de l'Alliance pour la République Dakar Plateau mais ñi nga xam ne également dañu bokk ci alliance euh, ci mouvance présidentielle bi nos camarades de Benno Bokk Yaakaar ñu fexe joxante loxo ànd bañ a xool la meilleure candidature la candidature de la jeunesse la candidature de l'espoir pour que ñu ànd ñun ñëpp matérialiser vision président de la République ici à Dakar Plateau pour ñu gën a mën a gunge askanu Dakar Plateau parce que c'est le même dénominateur ñoo bokk président de la République bu ñuy jàppale askan bi ñu bëgg a jàppale kon yaakaar naa ne bu ñu waxtaanee suñu biir war nañ mën a xool la candidat du moment le candidat du moment pour ñu fexe ba autour de lui relever ensemble les véritables défis loolu tax balaa may conclure damay lancer un appel à toutes les personnes ressources képp koo xam ne ni danga dëkk Dakar Plateau képp koo xam ne ni doomu Dakar Plateau nga ak foo mënta nekk fii au niveau de la diaspora mais également d'autres personnes ressources boo xam ne du ñu bokkuñu Dakar Plateau mais développement def leen ñor dinañ leen tàllal loxo ñu ànd fexe ba lii nga xam ne ni proposé nañ ko comme projet sociétal ñu fexe ba matérialiser ko looloo tax ak euh, vraiment chantier yi nga xam ne ni tey mi ngi xaar mi ñuy xaar li ma bëgg a wax mooy ñun waa Dakar Plateau moi je ne fais pas table rase à tout ce qui s'est fait am na lu fi am waaye dama defa des lu bari lii des nag kattan moo ko mën a def looloo tax ma jàpp ni war nañu gën a jàppante ba nga xam ne ni au soir du 23 janvier 2022 victoire de la liste de janvier victoire de la liste de la mouvance présidentielle fii si Dakar Plateau maa ngi leen di nuyu di leen gërëm merci